waxlul xoqdatan min lisaani yafqahu xawli asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax ci bisu màgg bi di leen wàcc seen wàccuwaay di leen sant bu baax di ñaanal mbooleem taalibe yi nga xam ne teew nañ ci guddi gi ñëpp suñu boroom defal leen fajog ajo ak liggéey bu ñu nangu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal mbooleem taalibe boo xam ne nii teewe na guddi gi mbooleem soppe boo xam ne nii teewee na guddi gi ak mbooleem mbokkum xitma moo xam ne tamit teewee na guddi gi kon ni ñu ko doon fas yéene doon defe at mu jot ci li ñuy weesu ci suñ ginnaaw lépp saa bu ñu tollaat ci waxtu wii daanoon jël benn xasida ci xasidaay seexul xadimi surtout yéen ci gën a miin mu doon lu mel ni jës bu ak bu ak muxaddimaat doon ko jéem a faram-fàcce suñ képp lañ ca dégg bañ defee loolu lépp nag ren ñu xool ne sëriñ bi tàgg na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci façon tàggin wu nekk wax na aw juddoom wax ci njariñul guddi gi kon ñi fi teew ñu bari ci ay dégg nañ waxtaan yi fi jaar yépp sëriñ bi wax ko ci jëf bu képp ku teewee guddi gi ak ku ko màggal lam ca wax ci ay njariñ waaye lam ca wax ci ak tedd nga ak ku karaama lépp ñu baree bari doonoon ko teelu ci at yi weesu ren nag bi ñu jéggee jéggikaay yooyu yépp dañoo jéem a jël benn aayab alxuraan bu suñu boroom di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naa koy wa innaka la ala xuluqin xasim baat boobu wala aaya jooju ñu bëgg cee taxaw def ci ab seetlu ñu bëgg cee taxaw def ci ab jàngat ndax mboolem waxtaan wi fu mu mën a toll rek wala luñ ci jukki lépp ci biit aaya jooju lañuy ñuy ay jàngat ak jiima seet li yonente bi sallallahu alayhi di doxe ak ni yàlla bëgg ku ko roye lépp suñ ko déggoo suñ ko dégloo ba dégg ko dañuy xam ne kon li tax suñu boroom joxoñ ko ne ko yow yaa gën a màgg jikko ci mbooleem li ma bind kon danañ ca am luñ ca jàngat lu baree baree bari jikko jooju nag ci lañ bëgg a tànn wala ci lañ bëgg a taxaw tànn ca ay jukki ca ay jëf rek ngir ñu fas yéene koo jàngalante ñun ñëpp ndax ñu xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki mënta jariñu ci moom lu dut ne da koo roy nit kii bu nee bëgg na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca du ko roy du tegu ci fam tegu woon du digle lam def kooku ak bëggam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mënta wér bi moom kenn kenn du jariñu ci moom lu dul ne da koo roy waaye nag saa boo ko royee dinga gën ku dul ka ko roy wala dinga gën ku dul ka def ni yow ndax yàlla suñu borom bu bindee ñépp jël benn jaam ci jaam ñi jox ko aw tagg ne ko mbooleem li ma bind mbooleem lu ma sàkk ki diggante asamaan ak suuf jikko daal yaa leen ko gën a rafet waaye jikko it yaa leen ko gën a màggale ñu xam ne mbokk yi jikko mooy àdduna ndax nit koo jëflanteel rek wala nit koo dugalanteel nga mujj ko xeeb wala deetoo bëgg a jëflante ak moom jikkoom moo rafetut waaye nit ki saa ko saa bu jikkoom rafetee rek boo jëflanteek moom benn yoon da nga koy namaat lool ba yaakaar koy jëflantewaat ak moom jikko nag suñ ko dee duggee ci biir waxtaan di ko faramfàcce yu bari yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci jikko ak nit ki lan mooy jikko ju rafet loolu mën nañ ci dégg yu bari waaye benn bu ci waay jël wala ñaar yu ci waay jël boo ko jëfandikoo yow danga nga mën a raw sa maas bokk na ci tedd nga ak yonente bi sallallahu alayhi li ko suñu boroom waxe ne ko bokk na ci li tax nga gën ñépp muy wal kaasimiina al xaysi wal aafina ani naas nit la koo xam ne kilifa la koo xam ne ak njabootam luñ ko mën di def mer mooma ci ca luñ ko def lum ca mer mer wala lu metti metti metti metti ca mu jëm ci kaw jëmmam ji dong dong dong ci jëm yàlla ji bokku ca wala ñàgg yu ñu ñagub sariya wala ñàgg yu ñu ñagub bu yàlla suñu boroom ñagloo bu dee ci jëmmam dong ci la jëm yonente bi sallallahu alayhi wa daana ko muñ waaye tamit daana jéggale ci jéggale gu rafet kon lañ cey njëkk a jànge mooy kilifa bala moo mat dëgg dëgg dëgg kilifa day mën muñal ñamu jiite waaye tamit day mën a muñ ay baat yoo xam ne day jóge ci nit ñi di ñëw ci ñoom di ñëw ci moom bu fekkee ne bëgg naa bokk ci wala bëgg naa jël lenn ci jikkoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day fexe ba la mu jiite ca ñu jiital ko ca mu man caa muñ moo xam kilifa gi nga xam ne ab sëriñ la ay taalibeem topp ko léeg-léeg mbooloo mi la topp dana am ñu doy waar ñu nekk dana am ñu lay dikkee it ñu nekk loola it boo mënta muñ ba fexe leen a téye ci sa loxo ba orienté leen boo dee jëfandikoo ak mer rek bu yàggee ab safaan mën na leen dal ndax li ngay def ci ñoom wala li ngay yéene ci ñoom li ci bari boo ko yéene suñu borom da koy nungu wala boo ko xalaatee ci ñoom suñu borom da koy nungu ca bu ko suñu borom nungoo day dal ci seen kaw. ci bu boobaa njariñ la taxoon ngir nga mën a jariñ doomu aadama njariñ loola doo ko deetul amati ci yow bokkaat na ci it kilifa gi nga xam ne it moom dafa nekk ci këram ak njabootam lim mën a def ngir mën a tamit yor jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy muy fexe ba njaboot gi ñëpp moom duñu bokk jaar yoon bu dee soxna yi la tamit ña ci yor ñëpp duñu bokk jaar yoon il faut am ko suñu boroom jël am na nattu tege la ko waaye lam la koy tege mooy la muy xamee ne yow sa jikko baax na wala sa jikko rafet na mooy nga mën a mu daarante ak ñoom di naxante ak ñoom ba jikko jëf soo ko mënee génn ci ñoom nga génn ko ci ñoom moo tax yonente bi sallallahu alayhi suñu borom di ko waxaat ci jeneen aaya ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fassan xalisal xalbi lan fadoo min hawlika faafu anhum wastaafir lahum wasaawirum fil amri bokk na ci jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nee na ko yow de sa yërmande ji nga ëmbal xeet wi sa ñeewante gi nga ëmbal xeet wi yërëm leen lool ba daanaka sax ni leen seen yaa seen yaay ji leen jur yërmande ji mu am ci ñoom yow yërmande ji nga am ci xeet wi ak ñi la topp yërmande jooju moo gën a kawe moo tax ñoom ñu mën laa wër nii mën a nekk ak yow waaye soo doonoon ku naqari deret wala koo xam ne nii ku la tooñ nga ne ko dinaa la wanne ma waroo maa tooñ wala maa la kilifa wala maa la yilif su boobaa kon boo defee noon tamit kon ñii la wër ñii ñëpp du la wër kon nag na ngay baale ci jéggale ci ngay diisoo ak ñoom kon it bokkaat na ci yor jikko yonente bi sallallahu alayhi wa ak yor jikko ju baax mooy nit wala kilifa bu nekkee ci kër wala la mu jiite bu mu wax ne kër gi nag benn baat moo fi am ci maa koy wax ndax nit bu fekkee ne dafa nekk ci yàlla defu ko ku mat mu ne benn kàddu moo moo fi nekk ci maa koy wax kenn duma xalaatal li ma xalaat laay def ca bu ma xalaatee kenn waru ca teg baat su boobaa mën ngaa tukki àdduna ndax nit manqué manqué manqué maa gi seytaane bala moo gën a mën a ñooxu nit. day fekk koo xam ne nii kenn mënu koo dindi kàddoom maanaam nit koo fekk rek ñu ne kàddoom day kenn du ko dindi seytaane ab xarit lay def kooka ndax day xam ne kii moom bis moo ko fexee ba jumloo ko rek li ma bëgg lépp danaa ko am waaye bu fekkee ne jël na jenn jikko jikko yonent bi sallallahu alayhi wa muy diisoo su boobaa seytaane da koy daw ndax ñi laaj xalaat ak ñi muy di waxtaan dina am ku yàlla setal am xelam setal xalaatam setal gis-gisam mba muy ba xalaat nit kooku seytaan du ci am wàll te bu ko laajee dana ko xalaatal xalaatal boo xam ne nii léeg-léeg la mu jàppoon mooy gën fuuf li ko waaji digal wala li ko doomam digal wala li ko soxnaam digal mooy gën fuuf moom li mu jàppoon bëgg koon def kon bokk na ci yor ji ko yonente bi sallallahu alayhi mooy kilifa goo xam ne ni day diisoo ak ak njabootam kilifa saa buy diisoo rek di waxtaan moom njuumte mën naa bañ a bari comme ni ko Seex Abdul Ahad Mbàkke doon wax ndax nee na lépp lu may def dama ci waxtaan ak samay bokk ak ñi yàlla xelal ndax bu dee nit koo xam ne ni soo juumee adduna juum soo jàddee adduna jàdd kooku bal ngaa jël benn division di ko wax wala benn sañ-sañ di ko jëf war ngaa xool ñi nga war a waxtaanal ci borom xel rafet yi nga waxtaan ak ñoom su boobaa sa njuumte ma naa bañ a bari wala booy juumit juum nga mën naa bañ metti lool kon jikko yonente bi sallallahu alayhi wa bokk na ci nit ki yor ko di diisoo loola tax tamit bi ko suñu boroom xoolee kawaat ak suuf muy moom yonente bi sallallahu alayhi wa daawut jàpp mer di fayantoo képp ku ko mos a tooñ dana jël tooñ nga moom mel da koo def jàmm ci moom ba nga mujj ñëwaat sopp ko sopp koo xam ne comme li ma waxoon léegi rek borom jikko ju rafet saa boo ak moom bu ngeen jaxasoo ci ak guddi da yàkkamti wala bu ngeen jaxasoo ci ak bëccëg ba guddi jot danga nga yàkkamti guddi nga jee nga dem gisawaat ak moom jaxasoo ak moom. bokk na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jikkoom ju rafet nit daana ñëw tooñ ko ci ab deram ci ab deram bu ko tooñee ba ñépp jàpp ne kii sax dañ ko war a rey ba saxaaba yi am ñuy mer ñu nekk di jóg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne bàyyi leen ko waaye ka ko tooñoon bis bu feebaree wala mu xëy ay fan romb ko ci romb ko fa ko daa romb dana jàdd ci ak njabootam laaj leen ne ana diw ndax ñi ngi nettali ci fiira ne am na yahut boo xam ne bi nga xamee ne dafa jëlloog yonente bi sallallahu alayhi wasallam kër bi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daa julli ji daana jël ay taxax daa ko tegal lum daa def loo xalaat ne lu bon la rek def na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko koy def ba ñëpp jàpp ne kii daal ku xamadi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bàyyi leen ko benn bis la xëy gis lu bon lam ko daa tegal ci aw yoonam ak lu bon lam daa teg ci këram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy romb ko fa. mu ne diw mii de danaa ko laaj ba xam baa mi ngi jàmm ndekete bi mu ko laajee ñu ne ko dafa feebar yonte bi sallallahu alayhi jóge këram dem ba ci moom dem seeti ko bi mu ko gisee mu ñëw mu ne ko yow yonte bi sallallahu alayhi wasallam lan ngay wut fii mu ne ko damaa gis kat ay mbir yoo ma doon defal ca mbir yooyu dama koo gisut may laaj ba xam ndax jàmm la dal kooko tamit ne ñokket ci feebar bi toog jàkkaarloo moom ne ko ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nga xam ne tuub na dugg ci lislaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa topp ci ginnaawam di ko tañ-tañal di ko sonal di ko teg mitit wu nekk waaye fexe na ba jëfandikoo moom ci jëfandikoo jikko ju rafet ci jikko ju rafet saa bu la ko nit wanee rek loo doye di doye di doye di rek wala sam xel lu mu sànku sànku sànku da ngay daal di ñëwaat ci saase kon bi ko yàlla suñu boroom tabaaraka wa taala xoolee ba mat lim doon ci la ne ko daadi ko wax ne ko inna arsalnaaka shahidan wa mubasiran wa nashira daal ne ko nag yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni naa la ngay aji seede waaye ngay bégale di aji xuppe li ma la yónnee ngay seede mooy saw xeet ëllëg yowmal xiyaam yaay ñëw seede leen ràmm leen seen kanam boroom waaye it bépp jaam bu ñu dugal ci bàmmeel danañ ko laaj kan moo doon sab yonent ndax yonent boobu moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon seede lay doon foofu ëllëg it buñ teewee ca bisum njàqare ba suñu boroom dana ko ñëw teewal ci suñ kanam ginnaaw ba ñu soxlaa am ramm bay sonn ngir yooxu ngir bëgg ku ñu ramm moom dana ñëw taxaw ci kanam suñu boroom ne ko ummati ummati kon feere googu moom lay doon waaye nag dana bégal ñi nga xam ne dañ koo bég ci aw waare wu neex ci aljana ci aw waare wu neex ci fay goo xam ne ni ëllëg yàlla suñu borom dana ko fay xeet yu ëllëg ngir ñu mën a sawar ci topp yàlla waaye tamit dana xupp ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ci sawara ci waareen woo xam ne nii dana mën a tax ñu bàyyi seen yoon wa ñu nekkoon ba ba jël yoon wi nga xam ne moom la suñu boroom tànn moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga bi suñu boroom di ko wax ne ko waxal sa xeeti ba moom day wax ci xadiis ne bokk na ci jikko ju rafet sax ñaari nit bu ñu toogee fekk kii dafa xam làng wii kii xamut làng langue weey am tey bu ñu ko doon misaal pël ak olof toog wala séeréer ak olof toog ñaari séeréer toog ak benn olof wala benn olof ak ñaari pël ñoom ñu yotteeku wala ñuy waxtaan ci suuf ci seenu langue ba bàyyi aw langam yonent bi sallallahu alayhi doon na ko tere ci ngir rafet rafet ngir bañ nit ki di ñaaw njortu ci moroom nit ki ndax loolu tamit wax na ne bokkut ci jikko ju ndax loolu su amee rek ni ko alxuraan doon waxee ne déeyante yu bari yi ngeen di déeyante day jóge ci saytaane ca kon lépp luy jóge ci saytaane rek jëm ci doomu aadama loolu mënut a doon jikko ju rafet ba alxuraan da koy tere ne laa xayra fii kasirin min najwaakum ilaa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islaahin ba ilaa aaxiril aaya ne lu bari ci li ngeen di déeyante lu bari ci li ngeen di gisee kaa ñu gisee kaa ñu daje barab sàngam lu ci bari li ngeen di def aw yu amu ca lu baax amu ca lu rafet amu ca lu dul ne da ngeen di déyante ngir ne gis lu baax loo xam ne nii jullit ñi la leen avancé loo wala tamit day avancé doomu aadama yi walla ngeen di déyante di gisante ngir gis seen benn benn mbokkum jullit moo xam ne dafa nekk ci aw tiis wala naqar ngeen fexe déyante di gisante. ba tiis woowee ak naqaroo ko su boobaa suñu boroom ne na booba déyante moom déyante bu rafet la di ngeen ci am tuyaaba bokk na ci jikko yonente bi sallallahu alayhi wa daana wax ay dëkkandoom ne leen bu leen di xeeb lu baax ba bu ngeen toggoon yeelub mbote yeelub mbote bu ngeen ko toggoon ci seen kër na ngeen yokk ñeex ma ba mu bari ngeen may man caa may seen dëkkandoo yi nga xam ne da ngeen a dëkk ak ñoom ndax ak dana topp doomu aadama ba ci aw ñam woo xam ne nii mi ngi dëkkandook moroomum dëkkandoom rek mu leer na kii mu dëkkal amut ñam woowu muy togg yonente bi sallallahu alayhi loolu daaw ko def këram bu xamee ne ñim dëkkandool amuñu luñ lekk wala amuñu luñ togg daawul fetal ci seeni bakkan wala ci seeni bët wala ci seeni nopp li muy togg ñoom ba seen xel di cay dem ci mënuñu ko am waaye bu ko naraan def dana ko def ba nga xam ne bu paree moom ñoom ñoo cay yam képp moom du leen ci ëppale ñoom it duñ ko ci ëppale ñu am ci seen àq ji nga xam ne mooy àqi dëkkandoo ji ngir jikko ju rafetam jooju kon tamit doonoon di leen roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci jikko ju rafet bépp jullit bu làng moroomu moroomum jullitam lam ko ëppalee na koy bañ di ko wan ne ko maa la ko ëppalee waaye nay fexe ba bu koy def na ko cay sedd te di ko ca bàyyi xel ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama yi ci ak jariñante la leen suñu borom di soppee waaye tamit ci ak jariñante la leen suñu borom di jariñe ndax waxoon na ne bépp jullit boo xam ne rek wuññil na mbokkum jullitam ci njàqare joo xam ne ci àdduna la suñu borom dana ko wuññil njàqare ëllëg yowmal xiyaam moo tax balaa nga gis nit koo xam ne danga ko gis mu léej lool lu bon lu nekk mu koy def lu bon lu nekk mu koy wax ba yow mi ko ji sax saw fit day tit ci moom ndeke yàlla suñ borom dénk na ko benn sekkare muy ci benn ci jikkoy rafet yi muy sutura moom lu bon lu mën di def dana ko def ci jëmmam waaye du ko jëmale ci doomu aadama bu fekkoon doomu aadama muy nekk ci lu bon walla lu ñaaw mu gis ko du ko wuññi suturaam waaye tamit du ko siiwal kooku boobu jaam day saa boo xamee jikko yooyu ci moom na def attention ci moom bu ko jàppee mukk ne jàmm nar a torox ëllëg la ndax siñ sàmbay dañoo dana wax ne suñu boroom ëllëg yowmal xiyaam buñ ko doon misaal ci nit dana sëgg ne dee nit ci ay noppam ne ko kii diw sàngam mu ne ko ah mu ne ko yow de ak li nga def lépp ci lu ñaaw ak li nga def lépp ci ak mbonte waaye benn bis rek mos naa suturaal benn doomu aadama suñu borom ne ko nag nanga nga suturaale kooku kaa mu suturaale ko ndànk dugal la aljana ci kenn du yëg waaye it noonu nga gise it borom jikko joo xam ne it jikkoom rafetut nga gis ko mu sawar ci ak jaamu yàlla lool waaye jikko ja moom la kenn gërëmut muy jaamu sonn ci ak jaamu yàlla ŋar ci guddi ak bëccëg di ci daw ba ñépp yéemu ci moom ñu naay kii dey jaamu yàlla dëgg la ba ñu bari di xalaat ci moom ne nitug yàlla la wala ñu def ko sax nitug yàlla ëllëg ñu àgg ci bisub taxawaay ba ñépp di yaakaara raw ba moom muy yaakaara raw suñu borom mel ni ku ko dee ne ko kii diw ak sa jaamu yàlla gu bari nga mu ko ah mu ne ko kaay nga dugg sawara dana ko laaj boppam ne ko lu tax mu ne ko sa jikko ju ñaaw ji nga yore woon ci jikko yoo xam ne nii daawoo suturaal benn jullit wala sa menn moroom doomu aadama soo soosee tey moo la wuññil moom lañ la muure ba mënuñu la mënuñu laa jox kiiraayul nga mën a dem aljana ca kon mbokk yi loolu su ngeen ko xoolee ñaar la yuy jegeñante yu xaw a jege barab ca bokkuñu la koy waral bee mooy jikko ju rafet lay waral bii mooy jikko ju ñaaw yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci jikkoom ju rafet moom daawut wax benn wax ju bon ci ginnaaw doomu aadama comme ni ko alxuraan diglee ne lii ñuy wax jëw ndax xam ngeen nu mel ñu ne ko déedéet mu ne dafa mel ni nit kuy lekk mbokkum jullitam mu faatu wala mbokkum doomu aadamam mu faatu ni mu ñaawe ci ab gis akub dégg noonu la jëw ñaawe moo tax jëw képp koo xam ne ni jikkoom rafet na rek moom yàlla suñ borom da koy musal ci day bàyyi jëw waaye bokk na ci borom jikko ju ñaaw mooy ab jëwkat foo ko fekk rek jikkoom moom jikko ju ñaaw la beneen bi ci desaat mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ki ndax lépp lu mu nar a xool ci doomu aadama ci ab safaan bu xoolee boppam rek day day daal di gis safaan boobu kon boo xoolee sa bopp sa bopp day daal di daal sëkk nga yemaat ci sa bopp li jëndi sa ayu bopp woowu bàyyi ayu doomu aadama wi kon doomu aadama yi jàpp na ci ne moom bu gën bu mu jàpp ne moo gën kenn wala war naa xas kenn lu dul ne saa bu duggee ci am néegam wala mu tëju rek wala guddi jot dana xam ne man mii yor naa loo xam ne ni warumaa xas nit war na yor naa loo xam ne nii warumaa gaaruwaale nit waaye tamit yor naa loo xam ne nii warumaa wax nit ci ab jaram lu ñaaw ngir lépp lu ma ko mën a wax rek ba toog di ko wax loolu mi ngi ci man loolu nag borom jikko ju rafet mooy mën a jànkonte ak loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jikkoom ju rafet jooju buñ ci aman ak sukkandiku ba ñëpp ñu ko jàngal doomu aadama yi fuñ nekk ba niñ leen jàngale baa fii nimara wala ñu leen jàngale ni ñuy mokkale fatiha ñu fexe ba jël ci ay jikkoom benn jikko wala ñaar wala ñett jikko jikko woo rek àdduna dana mën a jag ndax moom ñi mu defaroon ñëpp ci jikko ju rafet la leen defaroon ba nit ñi di leen tagg ba léegi ñuy waxtaan seenu mbaax ak seenu def liñ def ci àdduna moo tax jikkoom ju rafet jooju ak ñim yaroon ñëpp ci jikko ju rafet moo tax suñu boroom jox na ñooña maqaama mu rëy waaye tamit jox na ñooña daraja ju rëy mooy inna allazina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna allaha yadullahi fawqa aydihim ay nakasa fa innamaa yankusu ala nafsihi suñu borom nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallama sa jikko ju rafet ji ma la joxoon ak jikko ju rafet ji nga tàggat ji nga mën a tàggate doomu aadama yi moo tax ba ñi nga xam ne dañoo jaayante nag yow ñooña biñ jëlee seen loxo teg ko ci sa loxo ñi ngi ko teg ci loxol yàlla biñ jëlee sa loxo teg ko ci seen loxo ci sa loxo yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ko teg ci loxol yàlla waaye nag képp koo xam ne nii teg tegante ngeen loxo mu xëy dugg ci ay tappale wala mu dugg ci ay caaxaan wala li nga ko jàngal ci jikko mu bàyyi ko dem defi leneen worom googu ak caaxaanam yooyu ak takkal tappaleem yooyu du wàcc ci kenn lu dul ci kawam lay wàcc mu dellu ko waxaat ne ko laqad radiyallahu anil mu'minuna idh yubayyi'unaka tahta sajar mu ne ko ña nga yàlla suñu borom gërëm na ña nga xam ne dañoo jaayante nag yow ca ron garab ga ñoo ñu am na ngërëm loo xam ne nii deetu dog mukk ndax ñi képp ku jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa dana la jëmbët ci sa yow ci sa jikko ay jikko yoo xam ne nii ba ilaa yawmi diini yàlla suñu borom deetu ko xarab kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikkoom ji rafet jooju moo tax suñu boroom jox ko jëpp daraja moo tax suñu boroom jox ko jëpp màggal gu war ci moom ba moo tax seexul xadim di wax ne muhammadun misaaluhu lam yaati fiima mada wa abadan la yaati sabbata ana rabbana lam yuridu mislahu fa mislahu lam yuridu lahu siyaadatun lahu baraa yowma ala suwalada safaa huwa nabiyu wa rasulu wal xalil wa huwa alhabibu wal imaamu wa dalil bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla suñu borom bi mu joxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëpp jikko sëriñ Tuubaa xool jikkoom ja mu mat ci la waxee ne yow yonente bi sallallahu alayhi yow day sa kem ak ku mel ni yow déetul amati ba mukk waaye lu sax la ci suñu boroom ak nammeel la goo xam ne nii suñu borom moo ko tànn jox la ko ci déetul am ci yow waaye danga nga ñu dolli ak baax ba ëllëg bisub taxawaay ba wala ëllëg bisub ramm ba moo tax sa jikko ju rafet jooju ji la suñu boroom tànnal nga mel woo ko biir ak biti moo tax yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la suñu borom solo yow yaay rusul bi yow lañuy ñuy yónni yaay xarit bi yaay sama soppe waaye tamit yaay sama imaam imaam yaay sama dalil nit nag. bi yonente bi sallallahu alayhi jikko yooyu yëpp sëriñ Tuubaa na ñëpp ci àdduna xam ne seen jikko yëpp jikko yonente bi sallallahu alayhi wa moo gën a kawe mu far jël ko def ko imaam def ko dalil boo xam ne ni ci moom ci lay ubbeeku kon mbokk yi li ñu tënkoon bari woon na lool waaye xajul nag ci waxtaan wi ndax heure jot heure bi jot na ca sëñ bi mi wax ne. mën ñoo tëng ci lu ne dañoo dugal laaj yi ndax dafa am ñu amoon pas-pasu dajale loolu dugal ko ci ak suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi fiy soog a teew euh, ci kàddu gi ci biir daara ji kon dañuy jox suñ bay rek mu dugal laaj yooyu nga xam ne lépp dafa jëm ci wàllum fiq ndax suñu sëriñ ba moo ñu ko doon wax ne bu leen defar jotaay ba pare lu dul ne am na ku indiwaale masala moo xam ne ni ci fiq la jëm ci ngeen xam masala moomu na ngeen fexe ba wutal ko jàkk ubbeeku mu yóbbaale ko moo tax ñu taamu saa bu waxtu yu jotee rek bu ñu jëlaa xasida firi ko ba mu jee danañ ca toftal laaj yi comme niñ ko defee ni jël ci thème bi nga xam ne mooy ko ju fet ak i njariñam ci tamit lañ ci tënkoon lépp matul ndax munta mat ndax guddaayu waxtu yi comme suñ bay kàddu gaa ngi noonu